mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen nuyu lu bari ci soxna yi nekk ci Touba ci kanam yëpp tàmbali soxna Njaxan Mbàkke mu sëriñ Abdul Ahad mu jotli ko mboolem soxna yëpp nuyoo bi di soññee ci li ñu daan def ci weeru koor wi ñu fas yéene euh, lépp loo xam ne doon nañ ko def benn ñu dolli ko dolliwaat ko dolliwaat ko ndax sëriñ Touba moom ay mbiram yemut fenn te tànki kanam la yor waaye ayur tànki ginnaaw ñuy soññi ñëpp nag bëgg kenn ku ne loo ca daan def tey bu doon benn nga def ko muy fukk soxna yi ñooy gaynde yi la kenn mosu leen a man fenn ci wooteb sëriñ Touba bi képp ku mën a doon nga di taalibe nga bokk wala nga bëgg bokk ak foo mën ne ñu ngi lay soññ di soññ nag mboolem njabootu Serigne Touba gi mboolem seex Serigne Touba yi bàyyiwuñu kenn. ñuy ñaan nag képp koo xamante ni jóg nga te bëgg liggéey Serigne Touba te xamoo woon fooy jëm social. Touba ci kanam mi ngi fi na ñëpp ñëw jàppale ñu commission bi ah, ci turu nag soxna Bintu Mbàkke waroon naa ñëw waaye dafa am gàllankoor boo xam ne moo ko moo ko tee ñëw waaye nag bàyyiwuñu kenn kenn ku nekk daal na nga xam ne Touba ca kanam taxaw na te ku nekk gis na la muy def ku nekk teg nga ci sa bët ku tegu sa bët dégg nga ko te ku ci bokkutoo nit xam nga ne bokk ci mooy liggéeyal Serigne Touba ñuy ñaan seex Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te wér. di woote nag ci turu Serigne Mamadou Moutada mu sëñ Abdou Fatah mu yorul commission sociale bu Touba ci kanam ñuy soññu suñu mbokk soxna yi nga xamante ni ñoo ngi féete bitim réew di diaspora bi. soxna Alimatu Dukure soxna Rama Diouf soxna Kumba Diop soxna Ndey Ngone Seen soxna Fatim Fall soxna Fat Thiam soxna Ami Yàlla Baye Fall soxna Maguette Gueye Gabon soxna Jeylani Gueye Gambie soxna ba Badiane États-Unis ñu ngi leen di soññu yéen ñëpp waa diaspora bi. leen yóbbaale mboolem soxna yu nekk diaspora bi rek ñu leen di soññ bu baax a baax a baax ngeen jàpp ci commission sociale bu Touba ci kanam di ki sàkku seen dimbal bu baax a baax te xam ne ay jàmbaar ngeen wax dëgg yàlla te di leen ñaanal li nga xamante ni moo fi jaar di mbas moom suñu borom wàcce fi suñu borom saafara ko ci àdduna bi yëpp ba ngeen mën a dellu seen liggéey kenn ku nekk daal ni nga ci daan ñëwee nga ñëwee ci lu ko raw di santaale nag waa kuréelu soxna Touba ci kanam dëgg yàlla di leen jaajëfal ci tout soxna Bintu Mbacke ak soxna Aminata Sylla ñu leen di jaajëfal bu baax a baax gis nañ seen taxawaay bu baax di leen ci soñaal bu baax nag ngeen gën a soññ ñi nga xamante ni ñoom ngeen dëkkal ñuy bàyyi defal yàlla yi ngeen soññu leen ñu mën a jàpp ci commission sociale bi. di woote woote boo xam ne nag képp koo xam ne yaa ngi doon soxna dëkk Touba nga xam ne ay jàmbaar lañu ñu ngi lay woo ci Ramadan bi social Ramadan Touba ci kanam ndax ñun soxna Touba kat yaakaar naa kenn dama ñu des te man mii xam naa ci dara. ndax man mii damay dem ci daara alxuraan ci fu ma nee soxna yi soxna yi jóg nañu indi seen i dërëm ak seeni i ñaari dërëm ba mu bari ñu dimbali ko daara alxuraan yi kon nag waa Touba ci kanam bu nu ubbee social bi nga xam ne jaamu yàlla ci biir jaamu yàlla yi la kon ne ñëpp ñëw ci social bi képp koo xam daal yaa ngi ñuy dégg di dégg suñu kàddu liggéeyal Sëñ Touba rek moo nu ñor ak maam jaara may ñaan nag social ramadan bi ñuy woote ñoo ngi ci woote bépp jigéen ñoo ngi ci woo jigéen ñi di ci woo góor di ci woo mag di ci woo ndaw ndax at mi ñu ko doon def kat yegg seeti na te ñu bëgg ndimbal buñ ci def xeebuñ dara nag ku nekk rek sa ñaq loo ci am rek nag ñu ko indil ñu def ko ci jaamu yàlla yi ci tuubaa ndax am na ñoo xam ne ñu ngi sonn lool nekk biir tuubaa nekk ci àll bi nekk ci sancaan yi te bu ko yelloo lii ñu war leen ko yuti at mu ne te yaakaar nañ ko lool nag te toll nañ ci mbas mi yàlla wàccee fii ñuy ñaan nattu bu ñu yàlla teg la yàlla na ko yàlla teggi ah ñuy fas bëgg nag ñëpp nag loo doon def yokk ko ba mu gën a bëri jox ko jaamu yàlla yi ñu ci ñëpp nag di woo góor jigéen. di woote bis bu am solo muy bisu social Ramadan nga xam ne social benn bànqaas bu nekk ci biir Touba ca kanam di dimbale néew doole yi ci façon tawat bu mën a am bii nag dafa nekk bu exceptionnel mooy bi nga xam ne. dañ koy def chaque année mu nekk ci ramadan bi ñu fekk nit ñi néew doole fañ ne ñu nekk ci biir euh, sancaan yi ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi di leen dimbale ci ay dund ak it luñ mën a yowandalee seen dund. ma ci woo sama mbokk jigéen ñi góor ñi mag ni ndaw ñi ñëpp xeebuñu dara yéebuñu dara tamit ndax lu mel ni ko ci defar rek sa bopp nga koy defar te liggéey Sëriñ Tuubaa bi dafa. dañ cee war a gën a taxaw gën koo jëmmal def ci luñ man def ci luñ mënut yëpp fu ab murid nekk ci Sénégal ci àdduna bi ñu ngi lay woo ci biir euh, social Ramadan Touba ca kanam ñax nañ ndax nañ koy jox yayoon nañ ko tey ci jamono jii ñu tool fi lañ ko gën a soxlaawee ndax liggéey taxaw na ñu bari xam nañ ko di ci woo tamit ñi nga xamante ni euh, suñu borom tibbal na leen bu baax a baax ndax euh, maanaam boo lekkee ba suur yor sa saaku ceeb mu tege say magasin am na ñoo xam te ni bala ñoo lekk dañoo génn te fi yi génn bi daanaka lu bari dakkal nañ ko ci ñu bañ leen a fàtte moo waral social bu Touba ci kanam ñu ci woo ñëpp ñëpp rek ñu ngi leen di woo ñu ñëw ci jàpp ci ak nuñ ci mën a jàppee. di soññee nag ci weer bi nga xam ne weeru njëkkante la muy weeru ramadaan ndax Cheikh Abdou Lahad daana wax naan ñaari weer yi lu ma ci waaye laa baalu ma la ko ci muy weeru koor ak weeru màggal ku xamoon ndimbal yi mu nekk ak njëriñ ci nekk loo liggéey def ko ci ndax ginnaaw téléphone rek nga jënd ñaar téeméer crédit ñu multiplier la ko muy junni nga am ko bonus kon yàlla bu la diggee bonus war nga koo gëm te weer wi weeru bonus la weer def lu baax la ku def benn ñu fay la fukk kon dañ cee war a profité def ci luñ mën ak luñ mënut Touba nag dañoo soxla ndimbal ndax ñu ci bari dañoo bàyyi seen kër ne ak kër yi baay yaakaar ndimbal gërëm ne moo tax ñu ñëw Touba gi kon ñun ñi fi fekk si nga xam dañ fee nekk ku nekk li nga am war nga koo bokk ak sa morom mi nga bokkal Serigne Touba ndax bokk gu gën a neex mooy ki nga bokkal Serigne Touba moo dàq ci àddina kon fukki régions yeeg ñeent yëpp ñu ngi leen di soññ ci weeru ramadaan yi nga xam weeru ndimbal la weeru njéggal la weeru yërmande la lu ci am na ko ñëw jaayante ko ak social social moom yàllaa ko njëkk santaan te ñun ko war a a bëgg sax ndax ndimbal yàlla sax ndimbal la ñoo tax ñu topp ko yaakaar ndimbalam rek tax ñu gëm ko yaakaar kon suñ moroom jul nañ dimbalante suñu bopp suñ dimbalante ci suñu bopp rek yii yëpp dootu fi amati ci àddina ndimbal ci la lépp nekk tex ak gu àllaaxira yàlla na ko yàlla ak Serigne Touba defal ñu ngi soññi suñu mbokk soxna yi laa ko njëkkee ndax kat li si abi bu wax ca réunion bu mujj ba jar na ñun soxna ñu gën a jaajuwaat ndax kat nee nañu wax soxna yi ca man kon na nañ ñen ñi ci kanam rek nañ jaaju man sama bopp laa koy tàmbalee bépp soxna ñun jaajuwaat ndax suñ liggéey sëñ Tuubaa liggéey sa bopp la ndax ab dénkaane rek la te dénkaane boo xam ne moom boo fa nga koy soxlaa fa lañ la koy joxe moo dàq lépp koor gi nag moom boo bàyyee boo déggee suñu borom wax nee na boo war ba ngoon jox benn tàndarma benn dootu tàndarma nga jox ko nit ci weeru koor rek xamoo lu suñu borom tuyaabal ma doomu aadama xam ne toog na ñaari fan ñett yoo xam ne yow ceeb da koy të nga dem dimbale ko te yàlla tax suñu borom mën na cee defar sa àdduna defar sa àllaaxira kon nag defaluñ kenn suñu bopp la defal maa ngi woon nag àdduna bi yëpp bàyyiwuma murit bàyyiwuma jullit képp ku jullit rek woon naa ndax murit moom suñ tubaab ñëpp ko bëgg amul murit bi amul laayat amul tijaan amul xaadir kon nag man ñu ngi woon ñëpp ñu ñëw jàpp ci liggéey Touba ci kanam bi ñu liggéey suñ Touba ci dëkkam bu sedd bi sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te salaamaaleykum wa rahmatullah